Euh, ram uti foon fi ki nga xam ne aussi moo nekkoon sunu jëwriñ di seen lépp di seen njaase ka di ñaan yàlla na yàlla yërëm ko te yokk ay leeram waaw ñun yàlla dogal na bi li nga xam ne mooy mbas mi ñëwee ba agsi ci Sénégal président daal rek jël décision yi mu jël ñun dañoo taxaw aussi ak sunuy matuwaay def li nga xam ne aussi mooy euh, comité boo xam ne nii mooy doon gérer li nga xam ne aussi mooy wàllu mbas moom ñu jël ay nit ay bonne volonté jël ay bonne volonté yi fi nekkoon kenn ku nekk am nga responsabilité ñu dénk koo xam ne sunu xarit la sunu lépp di aussi borom xam-xam muy Mamadou Niang nekkoon jàngalekat directeur école ba retraité ñu dénk ko mu yor ko coordonné nekk ànd ak ICP maanaam ki xam mooy infini chef de poste bi kuréel yi nekk kenn ku ne am sa représentant ñu toog wax ak askan wi ci jaarale ko ci médias yi xam ñoo nekk ci dëkk bi xamal leen ne lii du xeex bii xeex du xeexab état mais xeexab askan wu nekk la wax dëgg yàlla ñoom tam kenn ku nekk indi sa contribution jàpp ci dugal sa loxo comité bi géré ko nam war a géré alhamdulilah rabbil leen ci ay jéego yoo xam ne macha allah dem na noo dem a dem ba yaa nag covid bi jeex na mais ñun waa Kayar yàlla muccal nañ ci ba gisama gisuñ ci benn njàqare gisuñ ci benn wax dëgg yàlla macha allah matoon na ñoo nekk ci département bi nekk ci région bi ndax Kayar dem na dugg comme xam nga dëkk pêche comme ni nga wax ñëppay dugg ñëppay génn ku nekk dañuy jóge di ñëw ñu amoon benn poste boo xamoon lan ci bunt dëkk bi ku ñëw dañ lay bala nga dugg aussi ñu jël dispositif fu mbaaram mbaari géej yeeg fu ay mbooloo dajee ñu def fa li nga xam aussi mooy dispositif yu lave-mains yeeg ak aussi li nga xam aussi mooy recommandation yi état bi joxe woon waaw loolu aussi vraiment yàlla dimbal nañ ci ci ak sunu borom ba ñu am ci résultat yoo xam ne aussi comité bi réalisé na muy ay ñoo xam ne waaye waa Kaar lañu doomi waa Kaar la doomi Kaar la la dëkk fi la juddoo yaroo fi fi comme ni ma nekkee ndax xam nga day jëwriñ joo xam ne aussi sagub kayaar la ndamal kayaar la aussi ni ma leen wax toujours ñoom ñu ngi yóbbu dëkk foo xam ne sax kayaar yeggu fa ndax buñ génnee ci média way ñu ni kii doomi kayaar loolu ab sag la loolu développement avantage la ak ñeneen ñi fi a fay ndax wax dëgg yàlla ñu ngi def promotion kayaar ñu ngi yëkkati kayaar ñu ngi jëmale kayaar kanam kii nag moom yàlla dafa dog aussi muy seen wóla di seen xarit di seen rak di seen lépp di diisoo ak ñun ci lu bari di waxtaan te wax dëgg yàlla programme bu ñu am lu ñuy def aussi mu taxaw ci taxawaay bu mat sëkk te ñun aussi dina ñor rek moo di ak taalibe ndax loolu ak taalibe amul njëriñ te taalibe googu ñoom moom ñoom dañ leen cee fekk ànd ceeg ñoom aussi ñu liggéey liggéey ba rafet di waaw ñu ngi tàggatoo di ñaan li nga xam ne aussi moom lay def muy clip bi yàlla na ko ci yàlla defal ndam te bu paree yàlla defal ko ci lu kawe njortam ci ay xéewal ak teraanga ndax euh, am satu mérité na loolu ndax euh, dañ koy bàyyi ki nga xam ne aussi mooy borom xasida yi mu sëñ Tuubaa daal na ko sëñ Tuubaa fayal boppam di ñaan daal Kayaar yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla saxal fi jàmm li nga xam aussi moom la ñuy yëngatu yor commune bi jiite ko ñu ngi ñaan di tàllalaat ñëpp loxo ndax Kayaar benn bopp kenn mënu ko xar ñaar ñun dañ ñoo dénk ñun dénk ñooy seeni kilifa ñoo ñu yilif kon nag ñuy tàllalaat ñëpp loxo borom xalaat yi rafet yeeg borom ñu ñu ñu mën ñu bëgg Kayaar jëm kanam ñu àndi liggéey Kayaar Kayaar jëm kanam ndax Kayaar foofu la moo tax mu a développé